Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu yi ñu ngi leen di ziar te di leen ñaan jamm te di leen fàttali rek ngeen abonné ci chaîne bi te partager vidéo yi ngir ñëpp jot ci tey nag ñu leen di baaxee secret bu am doole bu am solo lool ci kaaraange bu mat sëkk muy wa amanahum min xawfin ku bind wa amanahum min xawfin 1111 fois jël xaatim bi teg ko ci suuf nga boole ko ak xasu xay nga baxal ko ba mu bax après nga seggi ko teg ko sango ko vingt et un jours bu neexee nga bindaat beneen mais du am xasu xay nga def ko téere ëw ko def ko set gaw incha allah kaaraange bu mat sëkk la bépp liggéey bu mu fekk si yow dana ko dindi incha allah képp ku la liggéey ku am jinne sax bu ko sangoo ku am rab muy góor muy jigéen bu ko sangoo rab bi dañ noon du la mënal dara kon nag ñu partagé ko ngir ñépp jot ci ñëpp jëriñu si si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ñu bëgg ñëpp partagé vidéo bi te abonné si chaîne bi ngir yeneen vidéo yi ñëw incha ñu ngi leen di nuyu yoon incha allah